وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما آسي مرسية لشيخ إبراهيم فاتح بكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى مريد هو الذي يفعل ما يريد الجمعة فكي فان ak juróom ci wéru gammo yamoku aljuma le 22 octobre ci atum 2021 di bis bi nga xam ni ci la sëriñ bi tànn ngir teg xeeru yeesalaat jumaay daarul moxti di bis bu màgg boo xam ni nag dafa dajeek bis bu màgg boo xam ni daarul moxti dañu ko daan màggal bu dul woon ak tegu xeer bi di feeñ jamonoog Cheikh Ibrahima Fati borom daarul moxti na ko sëriñ Moussa ko waxee fukki fan ak juróom ci weeru gàmmo di alxamis gaynde gi ñëw di yëmmu bis boobu tey moo tombeek bis bi nga xam ni ci la Cheikh Mouhamadou Basir woo njabootuk borom daarul moxti gépp ngir teg xeeru yeesalaat jumaa yi Daarul Moxti bokk yi nag bis bi fàttali nañu 2004 bi Serigne Cheikh Khady wooyee mbooleem njaboot gi yëpp ñu maasa teew fii ci penc mi ñu yeesal jumaa ju njëkk ji fi nekkoon waaye fàttali nañu le premier mai 1966 bi nga xamee ni Serigne Mouhamadou Awa Balla woo na njabootu borom Daarul Moxti gépp ngir taxawal jumaa defal ko borom Daarul Moxti te waxoon ca wax ju rëy jëni bu ñu ma joxee ma def ci bu ñu ma joxut ma ànd ak njabootu borom daaru muxti gii dem ca poor ba ca ndakaaru di yanduñu di ma fay ma di ci def ba keroog mu yegg ki nga xam ne moo bi waxtaan wi mooy architecte bi nga xam ni moo yore lëggéeyub jumaay daarul moxti kenn ku ne xam ne ni liggéey bi liggéeyub yeesal la waaye am na ay soppiku yu baree baree bari yoo xam ni dana ci am ci biir gi ci biti yi ak soroor yi te loolu liggéey bu mag lay laaj moom la doon leeral ak kii nga xamante ni moom mooy architecte bi mu ngi tudd Thiawo Kandji moom nag mooy architecte bi nga xamante ni liggéey yu bare moom la ko Cheikh mun taxaa dégg moo defar pencum daaru minam mi moo defar yi tamit euh, poroxaan ak liggéey yu bare moom nag moom la ñu tànn tey jii ngir mu ñëw taxawe liggéey bi nga xamante ni moom mooy liggéey borom daaru kon ñu bàyyi leen ak euh, architecte bi Thiawo Kandji maa ngi leen di sant di leen gërëm bu ma leen nuyoo ba pare nuyo bi ma jiital ci sëñ Bass Anta Niang mi nga xam ne moom moo ñu sant liggéey bi ànd kook taalibe yi sëñ Mafal Fall ak waa Kër Daaru yëpp waaw liggéey bi nag bi ma ñëwee dañoo def état des lieux état des lieux bi bi ñu koy def waaw bi ñuy def état delier bi dañoo ñëw xool ne jumaa ji ñu ngi ko def ci un hectare quatre cent liñ tabax ci jumaa ji aussi six mille mètres carrés la donc un hectare quatre cent yi mooy lii lépp ñu tabax ci six mille mètres carrés ñu teste jumaa ji xam ne yax bu njëkk bi moom baax na amul benn problème mais comme dañ ko bëgg a yeesalaat il fallait ñu gën a yëkkati digg bi defaraat décoration intérieure bi defaraat ko ba nga xam ne jumaa ji day wuyu daaru musti parce que booy wax dëkk bu nekk li muy wuyu mooy na jumaa ja mel bu ñu la dëkkab jullit bu ñu la wax rek boo ñëwee jumaa ji moo la war a njëkk signaler boppam ñu bëgg nag jumaa ji signaler boppam signaler daaru bu ñu ñëwee ci lu lañ déparé defar décoration bi fexe ba nga xam ne jumaa ji foo tollu di ko séen boo duggee ci biir tim daal di ne ah gongo donc daal looloo tax nag tey ñu ñëwoon ne dañ leen ko présenté globalement ngeen xool ko ñu wax leen budget yeeg yëpp bi ñu xoolee xayma budget bi tim ci un milliard huit cent la la la la la tombé li tax mu nekk un milliard huit cent nag mooy que liñ fi fekk dafa dëgër donc ay transformation rénovation rek lañu fi def defaraat ko ba mu gën a yànj jërë ngeen jëf. moom mi doon leeral nag boo demee ca daaru Minam jumaa ja fa nekk moo ko fa def boo demee Poroxaan jumaa ja fa nekk moo ko fa def tey jii moo ñëw Darou Mokhti fa yéene ànd ak nun ci liggéey boobu ginnaaw ba mu daanelee ay kàddoom nag. jox nañu kàddu gi Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdul Khoudous mu yore kàddu njabootug borom Darou Mokhti. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi noo ngi lay ziyaara di ñaan yàlla sunu borom mu may la kàttan ak wér ba lii nu fi dajale ak yeneen ak yeneen nga mën koo defee ni nga ko bëggee te nu ànd ko ak yow. di nuyu bokk yi fi teew yëpp di la seedeel ne mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu borom daaru Muxti buntu kër yëpp ñëpp wuy su nañ la képp ku ci am gàllankoor it sa ndaw teew na loolu nag mooy li nga xam ne bokk na ci li gën a am solo ndax woo ña nga war a woo ñu wuy si la déglu say kàddu lu am solo la kon nag yow rekk la ñuy déglu ci joxoñ booy joxoñ ne def leen lii Euh, awleen leen fii su boobaa rek mboolem njabootu borom daaru mooti gépp ci ñi nga xam ne ci deret lañu ak ñi nga xam ne ci aju lañu bokk ñooñu yëpp kenn ku ci ne la ca war dana danañ ko def ba mu mat sëkk di yokk tuuti ci li nga xam ne moom nga waxoon fële ca kër ga te mooy ginnaaw bi nga xamee ne feeñal nga sa yéene ak fas ko yéene ànd ak ñëpp taxawaay boo xam ne bi ñëpp rafetlu nañ ko de dañuy dañuy dañuy fàttali mbooloo mi ne leen li nga xam ne moom la architecte bi wax léegi un milliard huit cent yooyu euh, nuru na lu bari waaye itam mbirum sëñ bi moom ko ko xam dëgg-dëgg da nga xam ne lépp lu ñu yëkkati ngir sëriñ bi bu sooba yàlla du taxaw kon nag kenn ku ci nekk lala war mooy nga daal di takkute góorlu kilifa gu nekk soññ sa njaboot la nga xam ne mooy la fay daje ñu indi ko teg ci loxol sëriñ bi mu teg ko ci loxol ñi nga xam ne ñoom lay toppatooloo liggéey bi ci njiitu Serigne Abdou Samad moom Serigne Momadou Awa Balla leneen la ca des moom mooy Serigne bi ci boppam tey tàmbalee na ci ñeen fukki millions yoo xam ne tàmbalee na ko ci tey ji fas yéene lépp lu ko ci waay lu waay indi mu defal la ko ci boo boo boo boo boo boo yoree loo xam ne itam di ca bëgg dugg dina la booleeg ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi nga ñu wan la bunt ba nga xam ne fa ngay jaar ba dugal fa lool waaye li ci gën a am solo rek moom mooy mboolem njabootu borom daaru moxti gi nga xam ne wuy si nañu la kenn ku ci nekk boo fi jógee nga soññ sa njaboot xam ne sëriñ bi xam ne sëriñ bi sumb na loo xam ne borom daaru moxti la ko sumbal te képp koo xam ne que da ngay wuyoo borom daaru moxti sa loxo war naa feeñ ci loolu sa xam-sam sa doole sa lépp war na cee feeñ loolu kon mooy li nga xam ne moonu moonu fi dajale muy liggéey boo xam ne ci sëriñ Mouhamadou Awa Balla jaar ci sëriñ Cheikh yi ñi ci xam ne ñoo ci gën a fes loxo ci li nga xam ne def nañ ko ci ba fi ak fii liggéey yooyu nag day doon liggéey yoo xam ne waxtu wu nekk kenn ku nekk boo ñëwee la cay sa euh, sa sa tolluwaay nga feeñal ko ja ndax euh, sëriñ Abbas mi nga xam ne moo ginnaaw sëriñ Cheikh Khady moo toogoon euh, amoon na ci yéene lool ba tàmbali woon a xool maanaam dayoo bi lan lay tollook yooyu yàlla nag moom mooy dogal loolu moo tax sëriñ bi moom itam jàpp ne kon liggéey yooyu yëpp fa ko fekkoon dafa fas yéene ànd kook mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu borom daaru gi te liggéeyu juma boo ko de boo ko xoolee dafay dafay mel ni waxtu wu nekk am na lis ci war a def dañ ci war a def nag benn mu mu woyof lool nga xam ne daanaka du jar kenn di ko yëg wala mu xaw a diis wala mu xaw a bari yëgal ko ñëpp kenn ku ne barkeelu ca loolu nag mooy liggéey bi tey liggéey bi mooy yeesalaat ni ko euh, architecte bi waxee léegi yeesalaat lay doon waaye le yeesalaat lay doon bu dëgër nag lay doon ndax dafay ànd ak ay ay euh, technique yoo xam ne incha allah bu noppee kenn ku ci ne da nga xam ne lii moo taxoon sëriñ bi wax lii moo taxoon sëriñ bi yëkkati kaddoom bëgg ñëpp ànd koog moom. kon euh, bu ñu ko gàttalee rek moo di sëriñ bi woo na ñëpp ñëpp wuy si nañu ko sant na ñëpp itam kilifa gu nekk nga sant sag njaboot tax ñu lu ñu dajale ñu indi ko def ko ci liggéey bi waxtu woo xamee ne nag eh, am na koo xam ne kii moom xëy na lee dafa bëgg a def lu baax te loolu muy def loolu muy def dafa dafa bëgg a xam fu muy jaaree incha allah bu jox koog sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Mohamad Awa Ball ak ñi muy àndal liggéey bi danañ leen wax fañ leen jaar ba loola loola dugg sëriñ bi nag dafa wax ne maanaam eh, kër borom daaru mooti di di ab xaaj ci kër Serigne Touba dafa nekk loo xam ne lii nañ koy dundalee waxtu wu nekk mooy nii moo di ku fi nekkal borom Darou Mouhty ku fi nekkal Serigne Touba looy def lu nekk da koy waxtaanee moom yëgoo ko moom ba nga xam ne joxe na ca ndigal moo tax keroog sëriñ bi yabal ñu ñu dem ci Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy eh, xalifa xalifatul Mouridiya yabal nu nu dem wan ko nii ngeen gisee plan yi nii ñu wan ko ko xamal ko nekk nag Serigne bi moom dafa wax ne bu fekkee ne eh, jubu na la. ñu dal cay jublu su fekkee ne neen teg ko ci suuf ñu teg ko ci suuf sa ndigal rek lañ ci lañ ciy lañ ciy déglu mu xam le nag ne eh, lu rafet la lu baax la te ànd naa ci neel sëriñ bi bu soobee yàlla danañ ko ànd ak moom ci kaw ñaan ki jàpp ci ba nga xam ne fa mbëgg mu àgg fa rek dana fa àgg na mbëgg mu mel ni dana ni mel ànd ak ànd ak xol bu ànd koo xol bu sell bu rafet boo xam ne kenn ku ne xam ne diggam ak borom daaru mooti loolu moo tax Euh, sëriñ bi wax ne kon mi ngi seedeel ñëpp ne leen sant na ko am na ci moom itam cofeel gu toll ne li nga xam ne moom la am ci borom daaru moxti te loolu mooy li nga xam ne moo am ci moo moo am ci barab bi kon gannaaw sëriñ taxa ak bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal borom daaru moxti ñëpp nag kenn ku nekkoon léegi tàmbali rek mooy li ci des tàmbali boobu nga xam ne nag moom moom la fas yéene def ci la dugal ñeent fukki millions yooyu di wax na kenn ku ci ne loo loo yor rek nga dal ko indi dugal ko ci su ko defee bu sooba yàlla ni mu bëgg mu mel ni rek dana mel loolee mu waxoon itam ne dafa bëgg ànd ak ñëpp loolu moom lii wonee na ko kenn kenn desul ci njabootuk borom daaru bi kon wax ji daal mën naa bañ a mën naa bañ a gudd ba mu ëpp li muy wane rek moom mooy sëriñ bi woote na wuy si nañ ko digle na digle bi nañ ko topp te moo di kenn ku ci ne foo nekk rek loo mën nga def ko dajale ko indi ko def ko ci liggéey bi yaakaar naa ne li ci des sëriñ Abdou Samad dina ko gën a mën a leeralaat defee ñu xam nag fan la ñuy jëm ak naka lañ koy defee sëriñ bi bu fekkee ne loolu dara desul ko ñoon koy def kon loolu mooy mooy ndigal li mooy loolu mooy ndigal li mooy daal Eh, na ñëpp farlu daal fas yéene ni mu ko bëggee rek mu amee ko ni ndax li mu bëgg bu ko ni amee rek li mu bëgg dinañ ko am te liggéey bi moom eh, liggéeyu sunu borom la liggéeyu jàkka moom moom innama yaamaru masajida la man amana la ginnaaw ba mu daanee kàddoom nag jox nañu al imam di cheikh Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Mouhamadou daw Balla mi nga xam ne mooy imaamu raati bu Darou Mouhty sëriñ bi dénk ko liggéey bi ak mboolem lu jëm ci diine ji ci Darou Mouhty moom itam leeral na soññewaat ci néegub sunu borom subhaanahu wa bi nga xam ni moom la ñuy tabax taw annal masajida lillahi fala tadhu maallahi ahada aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim rajauhum muhaqiqun wa maliku fi abadan ma la yara malik raja'uhum muhaqqiqun wa maliku fi badan ma la yara maliku bina'uhum ya'lu wa laysa yansafil amma barisu wala famun safil salaamu aleykum wa taala barakatuh ñu ngi nuyu mbooloo mépp ñu ngi siyaare ñëpp ñu ngi ndokkal ñëpp ñaan ñëpp kàddu yu gàtt dañ ci indi leeral yi fi fu mu toll fu mu tàmbalee bi ak fii sëriñ bi dafa baaxu woon fan juróom yu nekk ci weeru gàmm mooy bis bi nga xam ne moom borom daal gënoon mu di ko màggal di toogee am yéene liggéeyal borom daaru juma mu seet ne nit ku nekk année wala seram daa am kàddu boo ko war a jox muy mu ci anniversaire boobee loolu moo tax mu tànn liggéeyal jumaa yi borom daar bi jox ko koro maam Cerno Ibrahima ci anniversaire bi tey kenn ku nekk li mu gën a bëgg nag boo koy jox moom koy jox maam Cerno Ibrahima ko doon bëgg jàkk la ko doon bëgg dafa ma nett li ne ma maam Cerno bi ne ba ba ba sawratul dafa war suñu mën a bal ne ko daa bëgg nattal ma sama diggante bu néeg bi ak penku ñaar fukki mètre defal ma fi jàkka ma dafa jullee si ndax man damaa tàmm julli jàkk ba jàpp naa bu ma moo ma jëlee fu jàkk rek damel damel amu julli mu liggéey jàkk moo yor suñu duxul suñu duxul ko jiite kon kooku yaakaar naa boo ko joxeele cadeau ci bisu anniversaire na ko jumaa laa lay defaral loolee da xolam daan ci sedd liggéey bi nag bi ko suñu tëggee suñu loxo dañ ko yaatal formé commission boo xam ne mooy saytu liggéey bi am na commission boo xam ne mooy de finance li fi dugg ci xaalis ak li fi dugg liy génn ñun ñoo koy seetu am na commission boo xam ne ñoo technique liggéey bi ñoo koy topp ba xam normes yi ñuy doxal doxul am na commission boo xam ne mooy yore main d'œuvre ak mobilisation moom sëñ Kara Si lañ ko joxoon am na superviseur am na joxoon sëñ Bas am na nekkoon coordonnateur bi liggéey bi nag dem na ba agsi fii lépp pare na tàmbali rek a ci des te jëleen bëgg teg xeer wi commission bu noppee ñoom daañu dajawaat bu dajawaatee daañ xool naka liggéey bi doxee kañ lañ koy jox ay commission ñoo ko di ko ñoo di si seen bopp bu noppee nag wax ko suñu mel kii lañ bëgg dox liggéey bi bu sëñ bi approuvé loolee dox kon daal lii mooy kàddu yi jàpp naa ne dañ ko tàmbali dana dana àgg ndax li li ma li ma wax léegi sëñ Tuubaa ko wax bi naa oom yaaloo wala seen wala seen safil seen nekk faw da jëkk day kaw te du wàcc mukk dina te ku ba wàcc ku ku ku suufee suuf bi naa am jaxloo wala seen safil ama bari ulaa foo safil kon yaakaar naa liggéey bi yaakaar naa si mi danga ko tàmbali te dana ko àgg ko par commission doxee buñ paree ñun commission bi dana daje seet nuñ ñu koy koy teg ci loxo buñ paree wax ko sëñ bi suñu après loolu loolu dox kon daal loolu moom lañ bëgg liggéey bi dañ dañ ci wax na ko léegi liggéey mu nu baaxoo doxee kilifa ku nekk soo waa kër ci yow lañu ñëw la joxe jox lañ koy jox nga jox ko sëñ bi waaye da mooy ñu aju ci Daaru Musti ba ñi xam ne gën ne feneen tam yéene lif ci lif ci jumaa ji bu lañu benn compte boo xam ne ci lañ koy def ku ci bëgg barkeelu ci compte ba ngay jaar def ko am na oh, numéro boo xam bitim réew am na numéro biir réew mi ñi xam ne tënkuñ ci tënkuñ ci daaw ci bokk bokk ci liggéey bi compte boobu ci lañuy jaar mais ñi aju daaru moom kon cib sëb sëriñ ngay def kon nag liñ bëgg léegi wax bëgg nañ ñaan nañ tam bu liggéey bi commencé chaque mois dañ toog seet li liñ liggéey ak li des seet liñ fi indi ko dugal lépp dañ dañ ko leeral ba lépp de transparence daal li ñu bëgg moom am ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan tàmbale ko ci jàmm àggale ko ci jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah ah, li tax sëriñ bi taamu bis bi mooy bis bi nga xam ne ci la borom daaru Muxti gane àdduna mu jàpp ne suñu suñu ci tàmbalee liggéey bi mu mel ni luy door a judd barke borom daaru Muxti bi dana ci feeñ loolu yaakaar naa noonu ñu ànd ak borom daaru Muxti ñëpp gëm nañ ne lépp luñ koy nuróolee di ko dëkk moom loolu xel mën na caa kon looloo tax sëriñ bi jàpp fukki fan ak juróom yi ci ci ci gàmmoo yi muy bis bi nga xam ne ci la borom daaru muuti feeñe woon adduna kon loolu itam da cee baax loolu ñu xamaale ko ndax mbir mu nekk bis bi dafa dafay am lu muy tekki waxtu bi am lu muy tekki barab bi am lu muy tekki kon fii ñu ko defee ak ni ñu ko wax ak bis bi yaakaar naa ne suñ xel mën na cee dal bu baax a baax ci ne ko sëriñ bi bëggee noonu rek la koy amee loolu laa fàtte woon a waxaan moo tax ma ne sëriñ bi ma dolli ko ci jërëjëf xanaa daa wax un milliard huit cent mille moo koy def waaye mooy loolu mooy goro goro goro liggéey bi waaye finition yi lépp lépp ak décoration yi ak tapis yi ak sonorisation bi lépp dama trois millions dama trois milliards moo koy moo koy def loolu loolu loolu loolu fàtte wax te li ci des li ci des mooy li ma fàtte wax mooy sëñ bi bi mu ne tam tam naa liggéey sama loxo laa ci njëkk def yëkkati na 40 millions def ci liggéey ba mu ko defee bàggal sëñ Ndiaga Mbacke moom sëñ Mahamadan bëkk dama ñëw na fi ñu ne 2 millions 275 mille Mamor Sall moom sëñ Aliou Sëñ Sall ñoo fi indi 4 millions ñun waa Kër Sëñ Modou Abal tey suba daje daje leen 4 millions dañ ko sëñ bi. dañu bëgg daal lépp luy dugg rek ñëpp xam ne lii dugg na waaw fii daal subi jox na 40 millions ñun jox nañ 4 Mamor jox na 200 et quelque 2 2 millions et quelque sëñ Mamor Sall jox na 4 millions loolu la bu fi dajeegul ci xaalis. mbokk yi bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma ixfir lii maa laa yaxlamu wala wala yu la wala yu la toxas nii allahuma ixfir lii maa laa yaxlamun wala yu la wala yu la toxas nii wala tuwaaxis nii bi ma yàquluuna nee na lool lu muy firi mooy nee na moom sëriñ Bass dafa leen a bëgg a wax ni moom kenn la ci yéen nee na gënuma ci kenn nee na léegi yàlla mooy sunu borom nee na mooy yilif ñëpp nee na moom lépp nee na maa ngi koy ñaan nee na mu bañ maa jàppe nee na samay jëf nee na li ci awul yoon mu nee na mu jégal ko ko nee na te bañ maa jàppe nee na xalifa borom daaroo ngi nii nee na maam Thierno ngi nii nee na moom Serigne bas nee na nit la koo xamante nii nee na ci yéen laa rek nee na borom daaroo ko jur nee na fas naa yéene aw ci aw yoonam nee na ba ma ko wootee it nee na benn mbokk desul nee na benn taalibe desul nee na ñëpp ñëw nañu nee na nongul ma nee na ñoom nag xajuñu ci dara nee na ñu ci ñëpp amee pas-pas nee na dana yegg ni ko bëggee nee na kon nag sant nañ leen bu baax ñëpp nag nee na ci tàmbali bi rek nee na waxuma laa nag nee na liggéey bi ñu jëm nee na kon ñun ñëpp nañ ci am Pastef rek nee na mu daal di yegg incha allah nee na ñi ngi rafetlu teewaayu bokk yëpp ak taalibe yëpp loolu mu wax ni njabootuk sëriñ bi ñëpp ñëw nañu waaye ñi nga xamante ni loolu sëriñ Basiru daan wax doone ndone yi itam ñi nga xamante ni ñoo jóge woon ànd ak borom daaru ci ndigalal sëriñ Touba ñëw faranti daaru ñoom ñëpp am na ku leen fi teewal moom la sëriñ Abdou Samad di junj ni liggéey bii dañ koo teg ci loxoom waaye dañ koo séddale ay commission yoo xamante ni kenn ku ci nekk am nga ci wàll woo xamante ni woo war a bay la. nee na lu ci war a gën a leer dana leer bu baax a baax a baax kon ñi ngi sant sous préfet ci teewaayam bi nee na ak takk der yi ñoom ñëpp. nee na xam nañu lépp loo xamante ni yitteel na sëriñ bi rek yitteel na leen. nee na jërë ngeen jëf xanaa di rafetlu teewaay bu baax ki nga xamante ni moo moom la sëriñ bi jox dëkk bi ci boppam muy sëriñ Cheikh Faye moom it fa tubaarakallaahu mi ngi nii toog ak jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo war a saytu liggéey bi nee na sëriñ Cheikh sëriñ bi mu ni ñi ngi sant ñëpp nee na tas taskatu xibaar yi ñoom ñëpp ak takk der yi ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax nee na di sant itam njaboot gi nga xamante ni fa tubaarakalaaw ñoom lañ bokkal borom daaru di tàmbalee ci njabootuk sëriñ Modou Awa Balla ak ñaari daaru mën naa ni ba ci sëriñ Xalit ñoom ñëpp sëriñ Bas nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax nee bi mu koy tàmbali ñëpp la ko wax ñëpp la ko yëgal waaye ñëpp wuy si nañu ca njabootuk borom daaru xajuñ ci leen baax nee na ñoo ngi nuyu bu baax a baax sëriñ bi. di ko ñaanal mu yàgg fi lool. nee na di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. ak di ko dogal ngànt ci kàddu yu ñuy yëkkati. nee na ak ko dogal ngànt ci kàddu yu ñuy yëkkati. ci kanamam nee na ci kanamam. ak mboolem waa kër borom daal yi. nee na ak mboolem. ginnaaw bu ñu leen ziaree. nee na ginnaaw bu ñu leen ziaree. jox leen seen wàccuwaay. nee na jox leen seen wàccuwaay. kàddu yu ñu doon jottali rek. nee na kàddu yu ñu doon jottali rek. yu gàtt lay doon. nee yuy jóge ci. taalibeb sëriñ bi. nee na taalibeb sëriñ bi. di doomam. nee na di doomam. di Mouhamad Nasiru Samb di di Mouhamad Nasiru Samb. jaayante nee na jaayante. bu mu bëgg tàmbalee ci nee na bu mu bëgg a tàmbalee ci liggéey bi. muy deux cent millions. muy deux cent millions mooy ñaari téeméeri million yoo xamante ni tàmbalee na ko ci nee na yoo xamante ni tàmbalee na ko ci liggéey bi. te fu liggéey bi toll it. nee na fu liggéey bi toll it. mu fas yéene koo toll ak moom. nee na mu fas yéene koo toll moom. kon nag loolu moo doonoon kàddu yi. nee na kon loolu moo doonoon kàddu yi. la ma cay dolli nag. nee na la ma cay dolli nag. mu doon lu gàtt gàtt. nee na mu doon lu gàtt gàtt. ci sama kàddu yi nee na ci sama kàddu yi bopp. ndaw ñi su ma ko sañee tudde noonu. nee na ñun ndaw ñi su fekkente ne sañ naa koo tudde noonu. ba ñuy fondement jumaa ji. nee na ba ñuy fondement jumaa ji. ñu ci ëpp ci ñun. nee na ñu ci ëpp ci ñun. nee na fekk ci fekkuñu fi. kon nag yeesalaat bi sëriñ bi di ko. nee na kon yeesalaat bi nga xamante ni sëriñ baa ngi koy yeesalaat. nanu jàpp ni. nee na nanu jàpp ni. lépp nun la war. nee na lépp nun la war. ndaam sëriñ bi tàmbalee na ci 40 millions. nee na ndaam sëriñ bi tàmbalee na ci 40 millions. waaye ndaw ñi daal. nee na waaye nun ndaw ñi daal. ndaw yi daaru. nee na nun ndaw yi daaru. ak mboolem ndaw yoonu murit. nee na ak mbooleem ndaw yi yoonu murit. fu ñu mën a nekk. nee na fu ñu mën a nekk. nañu xam ni. nee na nañu xam ni. liggéeyal borom daaru. nee na képp ku liggéeyal borom daaru. Serigne Touba lay fay. nee na Serigne Touba moo lay fay. kon nag nañu laxasaayu. nee na kon nañ laxasaayu. nii Mouhamed Nassirou wane yoon wi. nee nee na lii Mouhamed Nassirou Samb tàmbalee wane yoon wi daal di ciy def lu mat 200 millions. ñun ñëpp it. nee na ñun ñëpp. am. nee na li ñu am. ak sunu yéene. nee na ak sunu yéene. lépp nee na lépp. ñu boole ko ci. nee na ñu boole ko ci. lépp nag jaayante bi mu def lépp. nee nee na lépp jaayante bi mu def nii. Mouhamad Nasir. nee na Mouhamad Nasiru. def na ko. def na ko. ci ndigalul. nee na ci ndigalul. waajuram wii toog. waajuram wii toog. di sëñ Ahmadou Samb. di El Hadj Amadou Samb. kon daanaka kàddu yi foofu lañ koy. nee na kon kàddu yi foofu lañ koy tënkee. ndaw ñi daal. nee na ñun ndaw ñi daal. nañu fexe ba. nee na nañu fexe ba. liggéey bii. nee na liggéey bii. kenn duñu ci man. nee na kenn duñu ci man. ndax borom daaru di borom dëkk bii. borom daaru di borom dëkk bii ba fi Serigne Touba di di ko fi bàyyi. nee na ba fi Serigne tubaa di ko fi bàyyi. at yi mu amoon. nee na at yi mu amoon. fanweeri at. nee na wala lu ko yées. nee na wala lu ko yées. li ci ñun. li ëpp ci ñun. romb nañ foofu nee na romb nañ foofu. kon nag kàddu yaa ngi nee na kon nag kàddu yaa ngi noonu. ñu ngi jégalu bu baax ñu ngi jégalu bu baax a baax jërëjëf jaayante baa ngi noonu. jaayante bi ngi noonu ñi ñi war a jaayante itam fa Touba. Serigne maam na moom Daaru Mannaan ñu ngi ci jaayante yi de nee na moom sëriñ Cheikh Awa Balla nee na dafa wax ni lii mu yor barkeeloo ci enveloppe bi nee na waroon na teew nee na am ngànt nee na mu dogale ko ko. ginnaaw ba mu ci noppee nag wax na ni liggéey bi bu ñu ko tàmbalee fas nañu yéene weer wu nekk nu daje def waxtaan soññiwaat nit ñi soobuwaat ci liggéey bi. ba keroog nu fi dajewaat di ko inauguré incha allahu rabi lépp ci kanamu sëriñ bi yàlla nu ko yàlla defal ginnaaw ba nu ci noppee itam kenn ci ndaw yi daarul moxti waxaale ndaw ñi ak taalibi yëpp di sëriñ Modou Kara Samb jël na ay kàddu moom itam soññuwaat ndaw ñi waaye fésal jaayanteeb kenn ci njabootuk sëriñ bi muy le PDG Mouhamed Nazir Samb wax ni liggéey bi ndaw ñi dañoo waroon a wax sax mag ñi toog leen nu defal ko suñu bopp bu ne ndaw ñi nag ndaw yu murid yëpp ndaw yu lislaam yëpp ndax néegu borom bi subhaanahu wa taala la waaye daal feeñal na jaayante gu am solo ci le PDG Mouhamed Nazir mu ñaari téeméeri million di deux 200 millions njëkk a tàbbi ci liggéey bi fas yéene ko ànd ak nag njabootu borom daaru muxti gépp dinañu tàbb si bu ko defee liggéey bi sëriñ bi amee ko na mu ko bëggee ginnaaw bañ ci noppee nag sëriñ bi ñaanal na leen ci jataay bu njëkk bi ñu yëkkati ko nag génn teg xeeru yeesalaat jumaay daarul muxti yëkkati na turéelam ñaan ci teg ba mu noppee jox sëriñ Bassirou Abdou Khoudous moom mu ñaan jox sëriñ Abdou Samad imam mu ñaan ñu jox sëriñ Xaadim docteur ñu ñaan ñaanal laale waale njabootu sëriñ tubaay gi nga xam ne teewal nañ leen ak njabootu borom Darou Mouhty gi nga xam ni ñoom ñëpp teewal nañ leen mbokk yi kon Médina Darbo tey jii mooy anniversaire borom mu feeñee jamono njaboot gi nag bu ñu doon wax tey cadeau bi ñu jox borom Darou Mouhty mooy jumaa ju mucc ayib bokk ci yi nga xam ni ñooy gën a mucc ayib ci réew mi ci Afrique waaye ci àddina bépp ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom ñu yeggale ko ak jàmm mbokk yi bi ñu noppee ci loolu nag sëriñ bi ñaanal na yëpp waaye soññ waat na leen na ko waykat bi waxee jugal te jëf doo mën a jël loo fi jëfut te loo jëfit mu néew mu rëy sa añ bala nit dund na ba faatu te fekkewul lëggéeyub jumaay daarul moxti yow mi ko fekke bul xeeb sa junni bul xeeb sa téeméer bul xeeb sa ñaar téeméer waaye fexeel ba bu jumaa ji see yegg mu man laa yóbbaaleel dara fexeel ba bu lay tëral ci kanamu jumaa ji jumaa ji mën a seede ni sa jëf mi ngi ci biir liggéey bi bokk yi liggéey baa ngoog yàlla nañu fi teewaat di ko inauguré lépp ci kanamu Cheikh Mouhamadoul basiir ak mboolem njaboot gi te kenn bañ a manqué bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jox leen dig daje ci mbooleem liggéey bi fas ko yéene ànd ak sëriñ bi ci leeral yi yaatal yi soññe yi incha allahu rabbi ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.